mbokk yi ñuy bokk seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax dellu siwaat ci seen émission Miftahoul Houda seen émission boo xam ni saa su nekk day ñëw ngir jàngale waaye ngir ànd ak saa su nekk ak jamono ak actualité ñu si ànd ak nag suñu sang suñu soppe suñu professeur di suñu oustaz di al imam oustaz alhaaji pam Makhtar tey moom la ñuy àndal seen émission Miftahoul Houda ñu dellu si waat rek eh, ci seen plateau bàyyi ak eh, sang bi di al oustaz imam alhaaj Pape Makhtar mu nuyoo ak ñi nga xam ni ñooy ànd ak ñun ñëpp dañu seetaan incha allah fadilata imam asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu oustaz Mouhamadou Mansour maa ngi lay nuyu bu baax di la ziara di nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloo ñun ñëpp di ñu seetaan ci biir réew mi ak bitim réew ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax Hadj Mansour te di leen ziar oustaz ñu dellu siwaat tey ci plateau bi nga xam ne amal seen émission Miftahoul Houda war a waxtaanee actualité waaye tey nag dañuy ñëwaat ci beneen facette oustaz ak li nga xam ne mooy jamono parce que day toll si jamono foo xam ni yenn il faut ñu càmbaraat ni jamono di doxee xoolaat ko ak jàngale bi nga xam ne la sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon ñu gis ni soo xoolee jamono presque da nga naan jamono ji dafa soppeeku dee gi bari na oustaz tey jaadoo doo xaarat sax ñu tàgge nit nga ni ndax dafa feebaroon wala dara. da ngay xëyandoog moom bala ngaa gestu ñun la dem na ci jàkk yi da ngay toog rek si jàkk ba si yàgg ñun la imam bi daanu na wala kenn si jàkk ji daanu na foofu la yem nga coupé ak nit ñu ñoowaat la même pas 10 minutes ñi la ñàkk na bakkanam doxin boobu euh, jamono di dox est-ce que duñu yóbbu ci jàngale bi nga xam ne moom la sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon ci mujjum penc ci euh, mandarga yi nga xam ni oustaz moom la yonent bi jàngale woon jërëjëf euh, oustaz Mouhamadou Mansour déegu bare gi moom Mansour lenn rek lay tegtale mooy mujjug jamono. mujjug jamono rek lay tegtale ndax bu njëkk soo déggee ku dee sa mbokk mu dee sax boo ko déggee. Mhm. moytuwul boo déggee deux mille vingt bu deux mille vingt deux nga koy déggaat. Mhm. yenn saa yi gars yi nii booba moyen de communication yi ñoo barewul. Mhm. wante ak lu mu ñàkk ñàkk. nit mënul dee ci dëkk ba am ñaari at wala ñetti at na soog am koy dégg. ah mais oustaz jamono ji soo xoolee actuellement nii. Ah. da naan télé rajo rajo yee bari. réseaux sociaux yi Facebook bi day tàggee WhatsApp bi day tàggee est-ce que du looloo tax euh, lim bi lim bi lim euh, yokku. déedéet Hadj Mansour. déggee bari. déggi moo du ñiy tàggee bari moo tax ñuy dégg dégg dee dégg ci boppam Hadj Mansour moo bari fi mu toll nii. li tax dee gi bare nag mooy dañoo toll ci aaxiru zaman aaxiru zaman bu jotee nit ñi dañuy dee comme ay weñ. oustaz su jub see ngay wax waaye su jotee nag. jot na. oustaz daa xaw jub si na. yonent bi dafa ne woon. sallallahu alayhi wa sallam aatin aat yonent bi dafa ne lépp lu ñu la wax ni mi ngi yegg si rek ñëw na. Mhm. bis ci ñëw na ba noppi. te buy ñëw xam nga lu lay bett. loo xam ne daf lay bett bis pénc ci nekkul day ñëw nga naan ñu ngi ci deux mille vingt et un ñu ngi koy séenu ay deux mille trente ak ñu ngi koy séenu ay deux mille quarante ak déedéet moom laa yati la yonent bi waxoon illaa baxtatan buy si daf lay bett loo xam ne nag buy egsi si lay bett. Mhm. saa su ne da nga war a jonkan di ko xaar yegg si na te yëgoo ni Mansour liñ naan bis pénc dafa am ñaari bis pénc dafa am bis bu mag ba ak bis pénc bu ndaw bi. kon bis ñaar la. ñaar la. ban ak ban bu ndaw ak bu mag ku dee rek sa bis pénc taxaw ku dee ku dugg bàmmeel rek sa yaa ngi sa yomal xiyam. Mhm. ndax yonent bi daana wax ni bàmmeel. mooy kër gi nga xam ni moom ngay njëkk a dugg ci kër yi yomal xiyam bàmmeel waaw mooy kër gi nga xam ni moom ngay mujj dugg ci kër yi àdduna yi. Mhm. xam nga ñu nekk ci bàmmeel yi. waaw ña ngay xam la nekk yomal xiyam ñun ñi tiim bàmmeel yi ñu ngi ci àdduna di xam ne lii ay bàmmeel la kon ñoom ñoo ngi ci diggante ñaari kër. waaye mm-hmm. képp koo xam ne dee na rek kooku yomal xiyaamam taxaw na li tax yomal xiyaam taxaw su duggee bàmmeelam lépp lu mu nar am ëllëg commencé na koo am ci biir bàmmeelam jëm yomal xiyaam kon déegu bari gi li muy wane mooy bis penc ci jege si na waaye ku dee rek si bis penc ci ñëw na. ku dee rek sa bis ponc ñëw na Mansour oustaz kon foofu lañuy jaar revisité waat mandarga yi ñuy sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni suñ ko gisee ci jamono rek dañuy gis ni bis penc teeru na yëpp ñëw na wala yu bari ñëw na mandarga yi oustaz neel tuuti ñëw na rek yëpp ñëw na Mansour oustaz soo ne yëpp ñëw na day gën a jege oustaz neel tuuti ñëw na <laughs> Mansour xam nga loo xam ni mi ngi ñëw te yàlla nee na mi ngi ñëw loolu gën a jege gën a sore dafay ñëw xam nga li am solo ci bis pénc du ñëw gi moo am solo du ñëw gi mu am solo li am solo ci doomu aadama bi mooy mu waajal ko bu bu ñëwee wayaf toy hmm, mooy mu waajal ko bu bu ñëwee wayaf toy gis nga deegu bari gi ngay gis tiitalul ñu bari képp ko am imaanu billaay du la tiital xam nga lu tax walan yu axira allahu nafsan إذا جاء أجلوا والله خبير بما تعملون بكن بنيك لي خمني أمن بس بو خمني فلا يالله وخيني فلا يدي دب بسو يكسرك مرم دعاي دب سو يالله برنامج وون نم بن كارتي لمو نيني فاندردي فن فند فند جانفي نيوم نيوم تلين يدي فند جانفي بدون كجيك نيوم نيوم تلين يدي ولا نيو آخر الله نفسا إذا جاء أجلوا والله خبير بما تعملون ديغو بارغي mandarga la ci bis penc benn benn yonent bi waxoon ne soo demee ba ñamu dëj man reggal nit nga xam ne koo xam ne tey boo toogoon Mansour ni dootuma lekk lu dul ñamu dëj doo xiif xiif du la rey waaw doo ah, xiif mën na laa si jamono ji bis penc baa ngi jege si mu ni soo demee tamit ba gis nit ñi dañuy ëppalante ay tabax maa étage bi am naa almadi kër am naa Grand Yoff kër am naa Sicap Foire kër am naa amitié kër am naa liberté kër yooyu rek ngay xëccoo am na mbuur kër am naa tiwaawan kër am naa tuubaa kër am naa njaasaan kër am naa yoof kër loolu rek la ñuy xëccoo mu ni su boobaa bis penc mi ngi jege boobaa bis mu ngi jege si su ngeen demee tamit ba gis nit ñi lu bon gënal leen lu baax lu bon gënal leen lu baax wax lu bon gënal leen wax lu baax def lu bon gënal leen def lu baax xotti sutura nit ñu suturaal ko su boobaa waaj leen te takk seeni bagage te xam ni bis penc ci yegg si na ci sën. oustaz jox nga ñu ñeenti misaal. xam naa fa ci émission tay bi si ñeenti euh, misaal yooyu la ñuy taxaw décortiquer ko waxtaanee ko ak yow doog a wàññeeku bis njëkk mooy déegu bari gi. Mhm. oustaz wax nga léegi nit ki mënut a fexe ba romb àppam. est-ce que kon jar na ñuy concentré wu ci sabab bi. maanaam sababu nit ki ci ni mu deewee fii la deewee ci lii la deewee accident la nangam ak nangam est-ce que duñu concentré wu rek ci kenn ku nekk sa bisa ngi ñëw te xamoo kañ la. jar ñu xool sabab bi parce que li tax sabab bi mën dal maanaam jàngoro ji rey waa sabab bi mën dal kële. sababu dee gi. man lam yamut bi sayfin maata bi gayrihi. taaddada al asbaabu wal mawtu waaxidun. wallaahi loolu Seydina Alioune waxoon. Seydina Alioune خارج am ñu ni man duma dem parce que kare deug so démé xaré jakarlu mu yor jasi da lay rek wala mu door la xeej nga dé sayna Ali ni len sabab yi rey nit mo bare ki sibiru ki pays ki ñambatan ki ngas moko ray ki accident ki nang waaye dé mom dé nit ki bu xasse ba dé ba tëdd lu ñuy wax deena deena rek deena rek la wax hmm. diw bokay tagge do ni diw maa ngi lay tàggee diw choléra rey na ko maa ngi lay tàggee diw coronavirus rey na ko maa ngi tàggee diw nangam rey na ko diw dee rek. effectivement loolu rek ngay wax waaye li tax ñuy concentré wu ci sabab bi. mooy bañ sabab bi tasaaro effectivement xoola yàlla dafa bëgg doomu aadama. xam nga tey nga baal ma. bu dee waa ji coronavirus. Mhm. yàlla tere. moo ko rey. war nañu. concentré wu xool feebaru coronavirus bi lan moo ko fi jële ak lan moo koy wàll nit pour balaa mu koy wàll keneen parce que keneen ki mu koy wàll kooku datu deewam rek lay dee du feebar bi moo koy rey Mansour waaye wér gi yaram nekk ci nit dafay dolli ngëm yàlla te dafay rafetal jaamu yàlla te dafay neexal dee. dafay neexal dee dafay neexal dee faju du tee dee. waaye day neex day day woyofal day woyofal dee dee. faju du tee dee waaye day tax nga gën a gëm yàlla xam nga tey ki feebar tëdd ay at mu ne luy boppam dara mm-hmm. di wëlbatiku ñu koy yëkkati di ko tëral ak ki nga xam ne mi ngi jaamu yàlla feebarul feebarul ba bis mu war a dee mu dee mais kële moo dàqale waaw kële moo dàqale parce que li tax mu dàqale kii toujours mi ngi jaamu yàlla am ngëmam kee nag dana mën na dem sax ba ñàkk gi mu ñàkk wér mm-hmm. nekk ak ñénki walla ak wàññi pas-pasam digganteem ak boroomam moo tax ñu war a concentré wu ci sabab yi Haj Mansour jërëjëf fajo ci imam moo tax ñu war a concentré wu ci ci fagar yi ku feebar mu dem faju ji euh, bañ euh, bañ a xaar dara parce que al wiayatu xayrun min al ilaaj aha kon baax na kon euh, kon be mooy bi njëkk oustaz beneen bi nga wax ni mujj jamono dañuy dem ba nit ñi dañuy ëppalante alal alal étage yi kenn ku seg day concentré wu ci étage yi mhm. oustaz mais euh, am alal utum alal euh, dagan na baax na euh, tabax sa étage tamit baax na mhm. lan moo tax tamit ñu boole ko ci lim yooyu oustaz buñ nee alal mooy li waa ji téye te ni ko téyee baaxul alal ju bon mooy ji alal ji waa ji am fi ko fi ko fàggoo baaxul fi koy dugal baaxul wala fàggoo na ko fu baax mais du ko def fii sabilillahi kenn ku nekk xam nga Mansour ki am fukki kër ñaata kër la ca dëkke benn am fukki kër am cent millions wala un milliard ci compte banque waaw mu wóor na ni un milliard bi doo ko jeexal waaw nga wàcc ko fa am cent kër encore di tabaxat yenen waaw yàlla ñooñu lay tek baram ni alhaykum takazuru hatta zurtumul maxaabira kala sawfa ta'lamuna suma kala sawfa ta'lamuna كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين xoolal question bu garaaw baa ngoog summa la tusalunna yawma izin ani naimi alal ji nga jënc dafoo ci lu neex yàlla dibale woo ci nit tabaxoo ci jàkk tabaxoo ci daara génnewoo ci azak bàyyi ko def ko alalu bët alalu bët bët ak alalu maa moom lii wala moo moom lii ba koy faatu mu jaral la sax nga koy tiitaroo ak di ko puukaroo ba koy bàyyi ko fi yàlla posé la question boo tëddee sa bàmmeel mun la waaw château ya étage ya compte banque ya anam su boobaa nga perte alal ji baax yonent daana wax ni nexmal maalu dégg nga de nexmal nexmal maalu la rasulaay daan wax nexmal maalu mooy alal a neex boo ko waxee saxaaba yi jóg ni ko ah sang bi yow yaa daan ŋàññi alal te ñuy wax ni'mal maalu mu ni fii yeddi rajuli saalih alal a baax waaye ne fekk yàlla teg ko ci loxo ku yiw loxo ku baax kuy génne azaka kuy dimbalee kuy def pour yàlla tax moo tax yontu yàlla daawut dafa daan wax ni yàlla yàlla nag ma musal daal ci alal joo xam ne maa koy liggéey fàggu ko bàyyi ko fi ñeneen donn ko ñu ma koy régler sama biir bàmmeel kon alal buñ koy ngagne moy ki am alal te du ci def lu neex yàlla waye ki am alal di ci def lu neex yàlla bobu Mansour ken ngagne ko. kon du alal ji moy bon ci loxo ki muy nekk. nekk mooy bon. alal baxna de aha ben alal tilimul ben alal saltewul ben alal bonul ci loxo bi mu nekk moy tilim wala loxo bay salte wala loxo bay am mo wala loxo bay bon wala loxo bay yiw wala loxo bay rafet fàggan bi dal na neex yàlla rek. su alal ji duggee sa loxo nag nga def ci lañ ca war a xaj Mansour ba tey oustaz wax nga ñu ci alal ya wax nga ko wax nga ko léegi alal moom mi ngi nekk ci sans dépend ci loxo ki ki muy nekk ci moom beneen bi nga wax ni suñu demee ba nit ñi lu bon gënal leen lu baax wala feeñal siiwal mbon gënal leen siiwal lu baax ñu ngi nekk ci mandarga biñ penc bis loolu yàlla waxoon na ko li ma tastaajiluuna bi sayyiati xablal xasanati xam nga lu muy tekk lu tax lu bon gënal leen lu baax tey jamono bi ñu toll Mansour jamono yi njëkkalante lu bon la xëyal suba wala léegi-léegi quatorze heures bu jotee télévision yi joxe flash xaw ma waaw wala information wala rajo yi kenn ku nekk yaa ngi gëstu xibaar pour joxe te xibaar bi du xibaar bu jiw da ngay gis loo xam dañ koy nëbb famille baa ngi koy nëbbu am na ci biir famille bi ñu ngi koy nëbbu catastrophe la kenn bëggul ku ko xam ubbi rajo léegi dégg gars yi dóor ko revue de presse wax ko léegi am loo xam ne nit la concerné ak njabootu boppam njabootu biiram nga tourné léegi dégg ko ci rajo yi wala nga gis ko ci journal yi kenn ku nekk tey foo ko mën a sax rajo yi journal yi boobu dafa gën a yaatu même Mansour Fall ak Pam Makhtar dañuy ànd mais saa su ne Pam Makhtar si la li muy gëstu mooy lu bon lu mu xam ci Mansour Fall Samba si mi fonkoon Mansour Fall mu exposé ko loolu Samba si dootu la fonk mooy njëkkalante rek xam ayibu nit moo tax Xasanul Bachir yi dafa daan wax ni dafa amoon aw nit aw nit ñoom dañoo jàpp ni ñoom amuñu sikk ñuy wax sikku nit ñi mm-hmm. ku ñu xam ci yow sikk wax mm-hmm. ba yàlla mujj leen defal sikk am weneen nit woo xam ne ñoom dañoo am ay sikk comme Pape Makhtar Sylla waaye ñu ni comme ñun am nañu sikk nañuy wax ci suñu sikk noppi ci sikku jàmbur ya ba mujj yàlla suturaal leen ci seen sikk jéggal leen ko tàbbal leen aljana kon nit njëkk leen ci wax lu baax njëkk leen ci siiwlal lu baax moo gën njëkkalante siiwal lu bon saabixu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi alsamai wal ard mais nag uxidat lil muttaqina xaj maasum jërëjëf fajoti imam oustaz alhaaj Pape Makhtar oustaz dafa mel ni waxtu wi ñu cërale woon mi ngi egg ci coppaxtal ba kon daal li ngay wax na nit ñi nañu gën a concentré wu ci kenn ku ci nekk mu fexe defar ay boppam te bàyyi ayibu keneen oustaz ñaar moo fi nekk kii li muy wax ci Pape Makhtar am na kii li muy wax ci Pape amul xool na ba amul lu mu ko lu mu ko lu mu ko kiyee mu sosal ko est-ce que ñaar yi ñoo bokk poids. ñett yëpp benn baaxu si ñaar yëpp benn baaxu si li ngay wax su amee. oustaz kii li muy wax. gis na gis na ko ci sàmba si muy sikku sàmba si. yonent bi donte sàmba si da koy nëbbu mais moom xam na ko mu fee feeñal ko. yonent bi nee na doy na nga nekk nit ki nekk fenkat mhm. lépp lu mu gis. wala lépp lu mu dégg mu nettali ko. donte dëgg la donte dëgg man dama masa laaj Serigne Mbaye si Abdou. Mhm. ci Tiwaawan. Mhm. ma ko papa lan mooy fen mu ni ma mooy wax dëgg gu yàq te kenn laaju la ko. mooy wax dëgg. gu yàq te kenn laaju la ko li nga wax dëgg la. لي واختي با مختار دغلا دغلا يو منصور دغلا لي واختي سامبل سي دغلا مي كين لاج لوكو مي دي ياخ بول كو واخ بول كو واخ بار لاج ني لوكو داخ كين لاج لوكو ان الذين يحبون ان تشع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم خمل داخ يالا واتيكو يونتي بي داي دم خاري bu demee xare am ay jullit ñu ñu fa rey jullit ñu ñu fa rey nag ñi demul xare fii di joxe information naan diw rey nañ ko diw rey nañ ko diw rey nañ ko bu di ragal lu ñi te non non ñooñu rey nañ leen ah rey nañ leen dee nañu mu ne ñi nga xam ne dañuy bëgg a joxe xibaar pour xibaar feeñ siiw ci gaa yi nga xam ne ñoo ñoo gëm yàlla mu ne ñooñu mbugal ñeel na leen ñi ni déedéet dafa am ñu doon taqal Aïcha njaaloo te njaaloo biñ ko doon taqal du dëgg loolu tax aaya bi wàcc yàlla ni inna alladina yuhibuuna an tashia alfaishatu gaa yi nga xam ne dañoo bëgg mu siiw ñaaw téef fi ladina amanoo ci gaa yi gëm yàlla yàlla ni lahum azabun alim te azabun alim foo ko dégg borom dina dem safara kon wax lu dul dëgg te te yaa ko sos baaxul wax tamit luy dëgg te muy yàq te kenn laaju la ko loo ci wax ban njëriñ lam ma sha allah ban lay yonent bi daf ko firi ci ci hadith bu gàtt man kana yuminu billahi wal yawmil akhir fal yaqul xayran aw liyasmut du ni ko gars yi ngeen di firee de fal yaqul xayran waxal yiw aw liyasmut te nga nopi du waxal yu wala nga nopi dedet kon wax yu ak nopi day yam waxal yu yu mom fo meunti tollu nang ko wax. ba pare nga noppi. waxal yiw soo waxee yiw ba pare fajati imam oustaz Pa Makhtar waxtu ñi cere woon jeex na. jërëjëf Hadj Mansour ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm nag ñi ñu doon seetaan yëpp di leen ñaanal yàlla mu defal leen jàmm defal leen sutura defal leen xéewal defal leen naataange réew mi yàlla fi yàlla def jàmm. ci barke yonent bi feebar bi coronavirus bi yàlla nag fi yàlla jële ci barke sayyidul wujud wa alami shuhud sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ngeen doon ànd ak ñun ci seen émission Miftahoul Houda ñu jox leen rendez-vous rek ci beneen numéro ak je ak continuité wu émission bi incha allahu rabbi ñu jaajëfal Oustaz Pape Makhtar jaajëfal Hadji Samba Sy mi nga xam ne moo nekkoon ci technique bi waaxiru daawaana an alhamdulillahi